gifted and Safi. Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم شعر الذي فيها ينازل القرآن. Happy Ramadan. To all Muslims, all the Quran defense in this holy month. قلبك يا شهر رحمة وريح بك يا شهر رمضان بك ورجي لقاء قرب ربي بك ورجي وقلبي بايا بوسا كرفان ويجي نقول Baay Abdou Sakour Fall mooy génn góor Baay Abdou Sakour Fall yaa génn góor Baay Abdou Sakour Fall mooy génn góor Baay Fall mooy ziare de waaw ziare de mbër na ngeen def waay nanga suma gi sant nañ bu baax a baax a baax yaa ngi am jàmm waa ñu ngi ci jàmm bu wér a wér kefe ngi mu ngi dox waa ñu ngi sant nag Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bu wér a wér mais Baay Fall c'est question quoi ah oui mais yow Baay Fall nan nga xalaatee loolu laa war a daanee mbër bi ah noonu moom day dépendre ci ni nga jàppee rek. ok ndax en 1993. Uh-huh. booba temps xale yi bëriwul. falan gis nga bu la jàppaan. Uh-huh. day daw caar la. nga dóor ko tànk mu busulu la. dëggantaan. xolal uh-huh. nawet lañ daan bëri. amoon na kele bu ñu tuddee bàyyi. am na kele ñu tunnee mbay. waaw yéen ah bëreetoo leen. yow yow nan nga mën a xamee kele yooyu ma nekk ci gàncax bi joxoo ma ko. Baye Fall yow kele boobu war nga ma ko jox de. da bàyyi ba guddi nga ñëw fii ñu daje fii. bayante <laughs> wax nga ne am na benn problème. yow lan la. mbaral esprit. esprit nekku fi. esprit laa soxla de. esprit lan moo sa problème. sama téléphone dafa bloqué du ba mais yow lan nga nekkee ci biir gàncax bi yow doo may doo may xool. xam yow xanaa xamoo ne avec mbër tout est possible. téléphone bu yàqu yow la moo ci yoonu mbër. yow xanaa xamoo man loolu laa njëkk a jàng avant may dugg ci làmb ji. waaw xoolal ma dafa bloqué dafa ok Baye Fall xaw ma doomu aadama lu tax mu mën a quoi. mbër. aw law sa téléphone bi a ndax la sa téléphone bi dafa am problème. problème la problème mu Google la am. Google il faut que nga télécharger vocal. <laughs>

yow ku yabaate nga yow waaye pousse waaye nga may saf kiriku yow bu may saf kiriku yow ngay mel eh, ne matt bi xam dégal maa ko def man fekk mais yaa ko am so jëm ma nit di leen wala alhamdulilah rabbil ya, alamin def fan tele café alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf Baye Abdou Sakour Fall léegi nag nga bëgg ci de la fayuma la yow waxal ba doo ma fay dara laa wax attention bébal yaa ngi sa café gu tàng gi ma ma ma këpp ko mu lakk ma. barke Baye Abdou Sakko di nga fay attention bébal non tu as transmenté le café ce que tu as fait c'est de la transmentation cabalogique di café kon boo demee dans la négociation rafetante. Eh, eh, oui ma laajuma la comment. and my bad.